sëriñ bi li waxoon wax ko mooy bis bii ni mu mel benn waa ndax jamono ji xat-xat yi ci nekk ak jafe-jafe yi ci nekk kuy woote sax dangay xalaat ndax nit ñi daanu mën a ñëw ndax nit ñi daal ñenee ñëw ndax yitte yi bari na yoon yi xat na jafe-jafe yi bari na waaye loolu day mbokk mel na ni feeñul ci bis bi ndax fii de li fi ñëw ci subaab léegi ak li fi toog yaakaar naa ni musta am màggal bu mel ba boom boo xam ne moo ëpp gi bariwul lu muy am kon nag sëriñ bi nee na yëg na loolu lépp yëg na kilifay diine yi yëg na kilifay état yi yëg na kilifay politique yi yëg na mbokki boppam yi ndax kat sëriñ Maama dafa am wax bu mu wax bu doy waar suba dañu nit bu ne moo baax ay bokk ma ko wax waaye nee na wax bu yàqu la nit bu ne moo baax dañ naan ay bokkam yu baax moo wax ndax baax nit ku koy wax baax nga waaye nit tam bu ne bu wootee ci ay bokkam teew bokk yooyu yu baax ndax ku teewul tam kat kenn du la mën a sib kon sëriñ bi nee na sedd na kontaan na ci dajal loolu bu mu fi dajal ndax bis bi kat ak nu man di deme rek nee na li saxoon ñu sos ko mooy jokk bopp tudd yàlla saafoonte ak lijjanti ko ci suñ bopp ndax àdduna dañ daan amul solo waaye lu am solo ndax lu lijjanti ko fii la lijjanti ko lijjanti ko nag daa am ay yoon yoon yooyee nag ci ngay mën a jaar ba lijjanti kon sëriñ bi nee na mbooleem ko fi teew amul sa pay diaspora day lu am solo ci réew mi li diaspora di dugal ci koppar ci réew yi mel na ni moo ëpp li ñu tubaab yi di dimbale ñun Sénégal ak ñun Afrique nga jox ma kàddu ci diaspora may nuyu sëñ Fallou Samb ma jiite fondation Cheikh Amadou Bamba ca Amérique ak Canada mi nga xam ni kuréel boobu nga xam ni ca laa bokk te ñu ànd at mu jot ca nganu Cheikhul Khadim gu màgg gu tedd ga te diggante New York Atlanta ak réew yépp ak état yi nga xam ne ñoo seq googee ngan li ma bëgg nag seere fii mooy sëñ Moutada Amar nii saa bu ñuy fekkee bitim réew saa bu ñëwee bitim réew fekk ñu ko du ñu tëgal lu dul liggéey du ñu tëgal lu dul ñu digal lu ñuy ñu fonk suñuy doom mooy dugal leen alxuraan mooy tàggat leen ci lislaam ki fi njëkk a tàgg te yëkkati fi kàddu ku ne dégg na alxuraanam sëñ Murtada Amar saa bu ñëwee Amérique li nga xam ne moom la seq ak ñun mooy yéen wala italien bu mu tax ñu réere sallallahu alayhi wa sallam bu mu tax réere seen diine bon nag suñ mu taraa sedd na ci gi ma la fekk fii tey ci gàddiya fekk gi ma fekk ci seen biir mbokk ngir mën a seedeel seen mbokk ànd bi ñu ànd ak donc waa diaspora ci lislaam ci kilifteefu kan kilifteefu sëñ Mamour Mbacke Moutada sëriñ bi maa ngi wax ci suñu ndigalal bàyyi di alaaji gumba seen di jëwriñ waaye nag sëriñ bi maa ngi la xamal ni la maa ngi ànd ak samay kilifa ñu nekk fii ci sama ginnaaw nekk sa ginnaaw nekk fii aussi ci suñu kanam di ci jiital sama xalifa baay du sama xalifa baay sax sama taaw di Abdou Samb mu nekk fii ci ginnaaw ànd ak Gumba Njaay ak mbokk taalibe sëriñ bi nee na ngi sant mboolem daayira yi sëriñ bi nga xamante ne ni moo yëpp ci léegi kàddu yi sant na waa diaspora te daayira yi ci lañ bokk waaye nag ñun ñi nga xamante ne ni dañoo féete ci Ndakaaru ak lu ko wër danañ sant mbokk taalibe yi nga xamante ne nii ñoom lañu bokkal bis bii sëriñ bii ab sëriñ bu ñu ko dee wax ay taalibe tax te taalibe yi day ñu ngi am mbégte ci yow lool saa yu ñu xëyee rek di gën a bég ci yow moo tax saa yoo wër bi di ko war a gis waaye nag sëriñ bi nee na yéen mbokk taalibe yi ñu ngi leen di sant bu baax daayira yi nga xamante ne nii ñoo nekk fii ci Gadeyelle ak daayira yi nga xamante ni ñoo nekk Ngaye Mékhé ba àgg Touba àgg Pekes ba jëm ci Ndakaaru ga ñu jugee mënuñoo lim daayira yépp ndax bu ñu ko doon lim du ñu fi jugee waaye sëñ bi nee na moom gis na seen liggéey dara marqué nee na mi ngi leen di sant bu baax. président Abdou Diouf ak le président Senghor président Abdou Diouf bu mosoon di jël kàddu communicateur traditionnel yi dañ koy defal lu mel ni lii suñ Cheikh def waaye bu paree dafay jëlaat kàddu mu ne seul son excellence monsieur le président de la république gardien de la constitution digne de ses acclamations moo tax ma ne kàddu yu baax ak teraanga yi nga yëkkati di ko jëme ci sama jëmm ju ñàkk solo ji ma abbat baat yooyu président Abdou Diouf wax ne teraanga jooju nga wax ci man ci sama mag yu baax yi la nekk ñoom Serigne Xaadim ak Serigne Gumba kon delloo leen ma teraanga yooyu Serigne bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa man tabihum bi ihsaan ila yawmi alqiyaamati mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma ngi yëkkati sama kàddu ci turu comité d'organisation 64e édition Magalu Gàddiyel ci ndigalul xalifa bi waaye ci sama ndigalul sama mag ñu baax nii ndax maa fi gën a doon gone maa fi gën a gàtt àlloo ci ci famille bi may wax ne sëriñ bi bis bi bi nga ko wootee ni ko fi jiitu waxe woon mbokk yépp ñëw nañ kilifa administration bi ñëw muy ay coono yu métti yu nit ñi jànkonteel ba egsi waaye ma wax ne coono yooyu yépp nag jaroon na ko jaroon na ko ngir barab bi ndax waxoon naa ko daaw dinaa ko leeralaat nee naa sëñ Touba moo joxoñoon sa maam ju baax ja sëriñ Gumba Asende ko jële ko fee indi ko fii yabal rakkam ju baax ja maam Cheikh Anta jox ko ñaan ne ko def fi jàkka te di fi jaamu yàlla joxoon ñëpp Serigne Touba fu mu nekk ñëw fa jànkoonteeg coono wàññiwul dara coono yi métti na waaye jar na ko ndax barab bii di biir kër gi li ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha di taawu Cheikhul Khadim ba ci soxna may mënatu fanaan nañ ci béréb bii eggoon nañ ci jamono joo nga xam ne ñaari doomi Sëñ Touba ñooy dëlaloo noo fii gan ci biir kër gi Cheikh Mouhamadul Mourtada sa turandoo 54 ans mosu ko manqué. jataay bu mujj bi daf ne Murtada sëriñ Fàllilu ak sëriñ Gumba mbaa di ngeen fonk barab bi ndax cosaan bu rafetee dañ koy fonk kon ñëw fii jànkonteeg coono yooyu wàññiwul dara mbaax rek la ak teraanga moo tax ma ne sëriñ bi kilifa yii fi ñëw te ñu àndoon ak ñoom liggéey bi rendre naa compte sa coordonnateur général mu di sëriñ Amar Ben Amar dina ci ñëwaat ci ay remerciement ak ci ay cant yu yaatoo yaatu waaye monsieur le ministre ma wax la ne la dafa am benn nitu lislaam bu baax buñ doon wax Maulana Cheikh Ibrahima Niass wala doomam la bokk mu waxoon président la république ne ko boo gisee ñëw ñu rek ñëw di wax chaque jour palais de la république xamal ne ndaw yi nga doxale suñu diggante yow mu ne ko ndaw yooyu yow am solo waaye monsieur le ministre ma lay wax ni tàmbalee ko ci monsieur le gouverneur de la région de Thiès tam wàcc ci le préfet de département wàcc ci monsieur le sous-préfet ñoom ñëpp seen taxawaay ak seen yitte ci màggal gi rafet na lépp lu ñu def ci taxawaay def nañ tàmbalee ko ci CRD ba ci CDD waaye loolu it du ñu bett ndax l'ambassadeur protocole Cheikh Oumar Diagne daf ma doon wax ne ma nit bu ñu koy nomee di ko jox fonction bu ñu xoolee compétence yi ba pare nañu xool yar bi ak teggin waaye monsieur le ñi nekk ci région bi tàmbalee ko ci gouverneur am nañ compétence am nañ yar am nañ teggin xarañ nañ matale nañ seen liggéey bu amoon lu ëpp jërëjëf dama koy wax ci turu sëriñ bi waaye jërëjëf moom jërëjëf rek la mën a doon. la ca des nag du ci sori mooy ñun ñi sëñ bi dénkoon liggéey suñu digganteeg sëriñ bi ma gàttal ko ndax dafa guddi dafa am benn nit boo nga xam ne kilifaam dafa fal woon nekk buur woo ko ba mu ñëw en concertation na ko ban poste nga bëgg ma jox la ko mu ne ko bëgguma benn poste bi ma mooy topp ci sa ginnaaw rek lool rek laa bëgg mu ne ko loolu rek nga bëgg mu ne ko waaw mu ne ko defal naa la ko mu ne ko kon nag baax na ñu toog diir bu gàtt buur bi fu mu génn rek muy lu rafet mu laaj ko moom lii ñu ne ko waaj yi topp ci sa ginnaaw ko moom mu wóolu ko ne ko mi nu mu demee mu ne ko xanaa topp ci sa ginnaaw rek loo rotal ma for ñun sëñ bi nii ñu mel lu dara topp ci sa ginnaaw rek lañ def loo rotal rek ñu for te rotaloo dara nag lu dul mbaax ak yiw ak teranga ak lislam ak wayfal sa bopp ak wàcce sa bopp yàlla na nga yàgg woote ñu yàgg laa wuy si wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu daje bi muy daje boo xam ni wax nañ ko léegi daje mbokk la yàlla dafa def ba mu tàmbalee ba léegi at mu jot day mel ni dafa am lu bees lu ci yokk eh, li ci yokk nag mooy wax nañ ko léegi ci contexte bu jafe bi sëñ Xaadim wax na ko tey jii ku ñëw ci daje bi kenn du la sikk ndax jamono moo fi toll ci wàll yépp xam ngeen ni ñu ngi génn ci wala ñu ngi sax ci contexte su pandémie bi nga xam ni moo jaxase àdduna bi yépp waaye terewul bu bés bii ñëwee nit ñi dootuñu xool comme ni ko sëñ Xaadim waxee léegi dootuñu xool jafe-jafe yi dootuñu xool jamono fi mu toll ma dañuy xool rek. ki woote kan la ñu wuy ko ci woote kan la mooy Cheikh Mouhamad Mourtada Amar mii nga xam ni euh, li ñu wax ku yokkul da wàññi te bu ngeen gisee ni ñu jëlee kàddu yi di koy joxlante ñu jox diw jox diw loolu yëpp mandarga la rek li ñu wax mandargaw générosité. Euh, yéen dëgg du ci alal rek mais yéen ci daraja la mais jël say doom jël say rak bu xaw-xaw ñëwee ñu mel nii ñëw yaa nga fële ñu ñooy doxal loolu day wane mbaaxam rek mbaax boo xam ni nii nag euh, mbokk yi sëñ Mame Mor wax na ko sànq nee na bu bu nit baax na ñu ni ndax mbokk yaa ko wax waaye ñun jàpp nañ day mbokk yi sëñ Mourtala yu baax lañ kon jàpp nañ ñi seere nañ ni sëñ Mourtala ku baax la ndax fépp fu ñu daje fépp foo xam ni nii daje diine la wala woote diine la bu fa teewee teewaayu doxal ak mbokk rek la teewaayu euh, feddali mbokk gi waaye teewaayu wane ni fii kat dëkk bii di Gade Yelle nga xam dafa am lu mu symboliser moom cëram mooy na yaatal na bennale mbokk yépp Abdallah Mbacke ci sama tour ak turu délégation bi ma àndal yépp ñu lim ko fi ñu ngi lay indil nuyu ak ziaru son excellence monsieur le président de la république son excellence Macky Sall président de la république moo ñu fi yabal sëriñ mu ni suñu ñëwee ñu indil la nuyoom ak ziyaara mais également ñu indil la mën naa ni ndokkale ci gàmmu gi nga xam ni yaa ngi koy dundal muy loo xam ni ca sa wajur la ba léegi mu tegu sa loxo mais macha allah nga ciy bay sa waar di ko dundal dundal bu am solo ndax li ngay def mooy fa sa maam bi seen woon rek fa ñu xoolul nga xool fa ñu tegoon seen tànk nga teg sa tànk ba tax na tey mën naa ni gàmmu gàddee egg na tey koo xam ni mën naa ni ci juróomi gàmm yi gën a am doole ci senegal ak ci Thiès ci la bokk ba tax na mën naa ni muy CRD di CDD di autorité administrative bu nekk ci région bi ba ci président la république ñëpp bàyyi nañ la xel defe naa ni su yabalee sama mag ji di directeur de cabinet adjoint pour mu gunge pour ñu ñëw jëmmal day wane ni président la république ci boppam moo bàyyi xel gàmm président wax na suñu ñëwee ñu wax ci sa kanamu mbokk yi wax la ni li nga xam ni yaa ngi ko doon mébét li nga xam ne également yaa ngi ko doon doxal askan wi muy mbokk tund wi yëpp muy yoon wi nga xam ni moo jóge Pekes jëm jéemul jaar Gàddiya sëriñ bi président de la république nee na incha allahu rabbi gàmmu 2022 suñ fiy ñëw ci goudron bu ñuul kukk la ñuy jaar incha allahu rabbi yàlla na ko yàlla teg loolu également may dalal sa xel sëriñ bi ki nga xam ne moom lañ teg mën naa liggéey bi ci loxoom muy directeur Ageroute jokkoo naa ak moom bi nga xam ni maa ngi ci yoon fan yële la ma ni waroon na ma woo sax pour confirmer ma bi nga xam ni président la république yàbbal na ma désigné ma pour ma ñëw représenter ko ci gàmmu gi pour mu jëmmal ma ni travaux yi c'est imminent mooy travaux yi li ci des bëriwul pour ñu tàmbali tëli bi PKS. Euh, gardien jéem kon sëriñ bi nga dalal xelu mbokk yi. ñëw gi ñu ñëwal Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne ne fii këram ku fi jël kanam la kanam la gën kanam la muy Sëriñ Tuubaa moo taxaw liggéeyu Serigne Touba bi yëpp fu ñuy defaree Serigne Touba dara rek moom Serigne Moussa moo war a jiite mbir moomu te fii lu ñu fi def Serigne Touba ko moom man mii man jaayante woon ak Serigne Serigne Touba jaayante ak Serigne bi jeex tàkk ci moom jox ko seen lépp. sëriñ bi nangu na leen seen lépp te ànd ba matoon sëkk rafetoon lool dara desu ca te noonu lañ ko doon dundalee ba ci sëñ Maodo Fallou mu muy borom barab bii diggam ak Cheikh Moustapha diggam ak Cheikh Bassirou dégg nañ ko ba tey ñi fi nekk ginnaaw am tam noonu rek lañ ko mën a rëttale sëriñ bi mu na lool diggante ñu baax ñu seqaloon léegi rek la sëriñ Mourtala si di wax ñan yi ko sëriñ Mourtala bi sëriñ Tuubaa doon nga fi kon loolu buñ ci dee dox ba taxawu barab bi ñëw ci loxo sëriñ Mourtala Amar te muy sunu xarit di xaritu ñëpp waaye sëñ Mountakha bàyyi ko xel lool ba bu ñuy ñëw rek yóbbantewaat na ma ay kàddu yu cant ak kàddu yu seere yu rafet ci sëriñ Mourtada Amar di wax taxawaayam di wax yittim di wax pasteefam di wax xelam mu ci ni muy liggéeyee ci biir taalibe bi rawatina ni koy ànd Serigne Mamadou ndax dañu ne ñaan soo ko defee yàlla may la nga toogaat fa nga toogoon ñaanaat ñaan nga nangu na dañu ne moom aw sàmm na ñoo yem fekk déggoo kan wala but la dalagul ci dara may rafetlu kàddu yi fiy jaar yépp ngeen mën a ànd waaye àndu leen ci nag mooy seen jaay nga ànd ak moom ci ne ko may taalibe bi yaay sëriñ bi looloo tax mu ñeme la mu jaxasoo ci liggéey lu bari ci këram may wax jokkoon ak Cheikh rek Cheikh jokkoon ak Mourtala loolu loolu loolu seen mbir la ngay wax waxtu wu ne moom nag waxoon naa ko ci kanam sëñ Cheikh ne ko sëriñ bi dama bëgg ñu sakkanal la di ko defee ni nga ko manee tam ban koo defee ni nu ko bëggee waaye ñoom du ñu sonn du ñu sonn yërmande rek a tax ñu wax waaye du ñu sonn sëñ Moutada daan na wax ne coono yi nit ñi wax sax bu naafilaa rek dutuñu ko yëg waaye sëriñ waaye lu mu sonn sonn bu gisee raj raji taalibe yi rek coono bi jeex ndax yërmande ñu ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fi te wëral ko ba naan yi mu sumb ak yeneen yàlla may ko mu yëggale yëpp ba sos yeneen du ma delluwaat ci fi ma toll woon damay wax ne rek réew mi nu yàlla jox lu bokk ko am nañu njiitu réew bu tudd président Macky waaye kenn ku nekk na jàpp ne am na wàll woo xam ne président Macky Sall mënu ko ko defal moo ko mën a defal boppam mooy sàmm gi ak aar gi ak taxaw gi ku ne am nga ci wàll te jàmm ku ko yàlla jox yàlla nañ ko xam ndax ku ko yor bala ngay xam njëriñul jàmm danga koy ñàkk yal na loolu umb ko defee di rafetal kàddu yi jëflinte li ñu koy rafetal ndax wax naa démb rek ci jàkk génne leen julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am solo am na lu ñuy tudde azikru bil qalbi bi lisaan azikru bi lisaan mooy baati alfaas yi ngeen di tudd subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah loolu mooy werd ci sa gémmiñ waaye am na azikru bil qalbi am na werd ci sa xol loolu mooy lan tafkiir fii malakooti samaawaati wal ard di xalaat yàlla ak li mu bind ak ni mu ko bindee asamaan ak suuf ak ya ca aju loolu xeetu la da ciy taxaw ba yàgg nga yëg ne yaa ngi fii waaye nekkatoo fi yaa nga fële léeg nit ñu wax ak yow sax fekk na yow luñ waxaan bu ngeen toogaatoon ñaari waxtu bu lu seen la maa la waxoon nangam ak nangam nga ne ko mosuma wax lu mel noonu xaraam mosuma ko wax fekk kaana hunaa wa zahaba nekkoon na fi waaye dem na. mu amaat lu ñuy tuddee azikru bil jawaarih sikkar ci ay cër mooy rabtul aada an jamii mania feex ba yeew say cër ci lépp lu yàlla xaraamal loolu xeetu sikkar la boo waree tànk bi ba luutu teg tànkam ci fu naqar yàlla rek yaa ngi ci sikkar boobu boo ci amee benn nag te amoon ñett ku am kilifa du yàlla jox ay kilifa yu baax dañuy nangu diine yi nekk ci réew mi te sonn lool ci diine yal na yàlla fayal ma leen kon yaa ma ko bind naa ko waa monsieur le ministre ndax yow bu la yàlla dogalee président Macky Sall def la ministre wóolu la yebal la gàdd yow nga xam ne bu ñu gisante rek fàttaliku nañ lu bëree bëree bëri te am na ci loo xam sax duma la ko xaw nëbb ndax Seex Sidi Maxtaar Kunta bi mu fi jege léegi daf ma ne mbaa xam nga ni sa góor yi ñëw ma kon ko mu ne waaw mu ne ma ñun kat man kat fi ma lay toggalee ak bu ñëwee Thiès kooku mooy yaay ma ne ko kon loolu xamoon naa yaa ko ma jaxasoo woon ñu soxna si mu nag mosuma ñebe ci wax ji ma noonu kon ñëw ma sa kër bu ma leen sant leen gërëm leen monsieur pare préfet waxoon naa li ma wax ci yow yow suñu xarit nga suñu mbokk nga suñu wëllëre gi ndax danga bàyyi xel askan wi mosuma la woo mukk jotuma la moom cinq minutes te wotuma te loolu mooy jege askan te nit ku ko jegewul doo xam soxla loo gis nag monsieur le ministre ci mban tant bi yëpp kuréel ma tudd lii taalib yi ci dëkk bee ko tàmbaloo taalib bi bu nekk ci biir dëkk bi mu ne bàyyi àggale ko leneen gis ñoo ko def daara jiit dëkk bee ko tàmbaloon benn taalib bi bu ci dëkk bi moo ne bàyyi leen ma àggale ko waaye fii nag du ñu jàmbat du xuloo du yuuxu du ñu dañuy tàllal suñu loxo rek xam ne lu état man dana ko def sëñ Moutalla dama mës a ànd àndal moom dajeeg ay nit ñuy gërëw coow yu bari ñu arrêté oto mu ne ma laaj leen lu xew mu ñu ne ko noonu dañuy gërëw suñuy droit la ñuy laaj kon da ngeen a jàpp ne am na ku leen mën a dimbali ku dul suñu borom waaw te ngeen ko laaj suñu borom rek bu gënee ci yéen daa ko jox ñun ci foofu la ñu nekk luñ soxla dinañ ko laaj yàlla waaye lu ñu mënut danañ leen ko yëgal. xam naa ni sax gëmmu leen ndax am ngeen ñu fi nekkal te ñu ngi leen di wax indi xabaar bii ñii fi nekk leeral nañ nga ne réew mi soxla nañ ko bi indi nga ñu xabaar boo xam ne mën nañ ci jàpp ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla na ko yàlla fekkeloo ba déwén ak jàmm yàlla na yàlla may ni ñëpp dem ak jàmm te bu kenn def waaye nag boo xoolee situation courant bi ni mu mel dafa am ku ñuy wax Pam Moussa Thiam doomu góor gi Demba Thiam moo nekk délégué régional ci Thiès bu Sénélec bi mu ñëwee fii ba ñu def ba xool ko dane duma toog mukk jekki ba ay kilifa ñëw fii dëkk bi mel nii mu mel te ñu jox ma nekk ci région bi li fi manqué lépp moo ñëw wuti ko ñëw def ko ne xam naa ne lii may def ñi fi ñëw danañ xam ne loolu laa war a def ñi ko samay kilifa yi ci kaw danañ xam ne loolu laa war a def def loolu nag day mel ne la sëñ Cheikh Mbacke waxoon rek maa ne dinaa fi ñëw ñëw naa fi asalaamaaleykum wa rahmatullah